doom ñett la. mu ne Maama Rabi daana ko wax ne ko. doom day ñett rek la. doom ju baax. doom ju baax. ak doom ju bon. ak doom ju gën. ak doom ju gën. mu ne doom ju baax. mu ne doom ji nga xam ne li mu fekk baax. mooy doom ji nga xam ne lu fekk muy lu baax. li mu fekk bàyyam bàyyi ci lu baax jàpp na ci. li mu fekk bàyyam bàyyi ci lu baax mu jàpp ci lépp. dara wàññi dara ko bàyyam bàyyi mu ne jooju doom baax. mu ne jooju doom mama la baax na. mu ne doom ju bon. mu ne doom ju bon nag. ne doom joo xam ne mbaax ji la fekk ci sa bàyyi. sàggan la ba mu rëcc ko amu ci dara. ndax sàggan xamoo ci dara yow. mu ne kooku doom ju bon la. mu ne kooku mooy doom ju bon. mu ne doom ju gën nag. mu ne doom ju gën nag. dafay taxawal li baayam taxawaloon. dafay taxawal kenn mu ñu baayam taxawaloon. yokk cee. yokk cee mu ñu boppam. lu ñu doy wala lu ko ëpp. lu ñu doy mbaa sax lu ko ëpp. mu ne jooju doom doom waxuma ne baax na waaye jooju kooku doom ju gën la. mu ne jooju doom moom waxuma ne baax na waaye jooju doom moom mooy doom ju gën. beneen yoon itam. beneen yoon itam. mu ne ma ñetti baat yi dañ ci dégg benn. mamalaat bi ne ko ñetti baat nii ma lay wax ci kat yaa ngi nii dañ ci dégg benn. melul loo ni sa baay. benn bi mooy da nga dégg ñu ne la meloo ni sa baay. mel nga ni sa baay. ñaareel bi moo di yow day mel nga ni sa baay. yaa jël sa baay. ak benn ñetteel bi mooy yaa jël sa baay. mu ne meluloo ni sa baay. mu ne meluloo ni sa baay nag. ne ko te nekk neexul a dégg. ñeexu dañ nekkee kenn bëgg koo dégg. mu ne mel nga ni sa baay. mel nga ni sa baay xam nag. mu ne neex naa dégg neex naa nekkee. mu ne neex naa dégg neex naa nekkee itam. mu ne yaa gën sa baay nag. yaa gën sa baay nag moom. ah neexu la dégg ci nopp naam. neexu la dégg ci nopp naam. waaye neex naa nekkee. waaye kon nag xam nga ne neex naa nekkee te moom nga ko jublu. mu ne Baaba Abdoulaye moo daa wax loolu bàyyi